bëggoon def benn waxtaan bu gaaw dama ko bëggoon def audio sax tasaare ko mu gën a gaaw mais man ne bon naa ko def live vite fait du yàgg dix quinze minutes maximum rek rapidement ñu mën ko tasaare yaatul ko mu yaatu jëm ci xeex bi ak ñaxtu yi dox ñaxtu yi ak xeex bi nga xam ne moom lañuy xeex rawatina ñu nekk ci diaspora bi ñoom ñoo tax ma gën di wax parce que ñu ngi leen di topp di leen seetaan macha allah gis nañu li xew Angleterre fan yële semaine bële. gis nañ aussi li xew Portugal euh, démb ak li nar a xew Paris yëpp dafa laaj organisation dafa laaj métode dafa laaj aussi ñu bokk nu ñuy yëkkateendoo ak tegandoo di ko def ci xel ak xam-xam aussi di ko def ci technique mu bañ nekk rek sa mboxloo kenn ku nekk jaar fu la neex loolu day yàq xeex bi ma gis na jot na ñu mën a waxtaan fexe ba am benn dress code maanaam am ay code yoo xam ne noonu la ñuy xeexee ñëpp di ko defandoo fépp ndax mu mën a am euh, jubluwaay biñ ci bëgg te mooy impact bi mu bëgg au niveau ci àdduna bi yëpp ñëpp xam ne ñuy xeex lan la donc lu ci nekk xel moo koy def mais bu ñu bàyyee kenn ku nekk dem ak xelam di def ni ko neex du am cohérence du am njëriñ nit ñi duñu xam li ñuy xeex lan la day sëmbaxloo jaxasoo dafa jot nag ñu organiser ko teg ko cim xel euh, ràcc ko ba mu ràccu kenn ku ki nekk boo bëggee jóg nga xool naka lañ ko diglee naka lañ koy defee nga defee ni ko ndax mën a am njariñ li ko may dañuy xeex ba sonn duñu am njariñ ci li ñuy xeex dafa laaj xel laaj organisation laaj méthode parce que communication la communication nag du ñëpp ko jàng ñëpp ko xam du ñëpp ko man waaw communication du yuuxu rek communication du génn daj ji du génn taxaw di wax du génn taxaw di saaga du génn déedéet communication dafa am ay code dafa am ay norme dafa am nu ñu koy defee soo bëggee li nga ci bëgg am ko ci te mooy àdduna bi xam li ngay xeex ba ànd ak yow ci loolu nga mën a am doole nga mën a am influence ci opinion bi fexe ba ñu ëpp ci askan wi xam li ngay xeex ba ànd ceeg yow dafa am noo koy defee ngir mu mën a dugg seen noppi donc dafa nag ñu taxaw ñi nga xam ne ñooy ñaxtu te li ñuy xeex di dëgg ñu xam ni koy defee parce que mën nga am dëgg di ko xeex te waaye boo ko jaaralewul ci science jaarale woo ko ci xam-xam jaarale ko fi nga xam ne boo ko fa jaaralee nit ñi ñu ko mën a dégg da ngay yuuxu ba nga dee kenn du xam li ngay def kon dafa jot ñu nekk ci bi ñëpp

après kenn ku nek yaay xol yaay seytu li rek doy nga jël li do nga bay waye man sama wal dina ko genn tek ko ñu moom ñu partager ko mu yaatu ñu man ko def rapidement euh, mu baña gudd euh mu baña gudd euh bon, je lis, maa ngi lire commentaire yi un peu d'accord ok mais di leen nuyu yéen ñëpp effectivement di leen ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay donc même bu nit ñi bariwul tamit après ñu dagg ko dagg-daggee ko def ko ci euh, whatsapp yi parce que live bi mën ngeen ko enregistré directement bu fekkee am ngeen beneen téléphone mu dugg ci whatsapp yi ngeen dagg ko ay audio cinq dix minutes dugal ko ci whatsapp yi ci tiktok yi dugal ko fépp ba nit ñi mën ci jot youtube beeg yëpp ku ne mën ci jot comme ça ñu xam ni ñuy xeexee noonu la parce que demb gis na Portugal bi fa Macky Sall demee ak ñi mu àndal gis na ngi doon ñaxtu taxaw c'est bien mais dafa am lu dess ba légui parce que bon gis na ño xam ne ñu ngi saaga ma mbay ña ñi gi wax di kër kër c'est bien mais c'est pas suffisant parce que lolu boko défé saga ma mbay sénégal yi ngay waxal nekkoo Sénégal yaa ngi Portugal saga yi ban jëriñ la am je ne sais pas lu ni jëriñ amna lu gëna pertinent saga te wa Portugal yéen gi Portugal li ngeen waroon def tawa France def wal ko def Amérique ku ci nekk fu fa ñom fu ñu fa dem désormais dëkk bu ñu dem nañu xol dëkk ba ban lak lañuy lak dëkk ba ban lak lañuy lak ñaxtu gi ngay ñaxtu nga fexé ba man ko wax ci lak dëkk bobu wax ko wax bu leer wax ko ci kaw ñepp dégg ko su hôtel la nga nekk ci hôtel ba xam ko mbedd mi ñi romb ñepp xam lan ngay ñaxtu lan la bu dé Mame Mbaye dafa lek suñu 39 milliards sàcc ko ci ay projet bu dee Mamour Diallo dafa lekk suñu quatre-vingt-quatorze milliards Macky Sall ñoom ñëpp dañoo jël suñu réew jaay suñu pétrole loolu lépp war ngeen ko mën a préparer xam ko ba képp ku ñëw ci dëkk yooyu ngeen mën a jël seen ay pancarte jël seen ay ay këyit bind ko ci bind bu leer boo xam ne ku ko liir xam li ngay bind lan la ca làkk réew ma parce que ñaxtu dafa am nu ñu koy defee mais mënoo taxaw di saaga nday yooyu dafa xeew yi il faut ñu arrêté yooyu bàyyi yooyu doxut ay saaga nday loolu voilà yooyu foo faut ñu arrêté voilà si tuuti def les choses de façon professionnelle aussi voilà ci dëkk tubab ngeen nek tubab bi xamuñu ay saga nday tubab yi li ñu xam moy ay slogan bind wala ñaxtu wax ko ci correction mais mu leer ba nga xam ne di nga mën conscientiser nit ñi yéen wa Italie yéen wa Portugal Espagne ak France ak Amérique yéen ñëpp il faut que tamit ngeen yéeg ci ben niveau de protestation bo xam day correct bu conventionnel voilà mais taxaw ci ay Portugal saga nday lolu lolu c'est man anduma ci voilà mooy ngeen a jël seen ay pancarte yu baax bind ci li ngeen ci bind ci portugais bind ko ci anglais bind ko ci français kii yor français bi kii yor portugais bi ngeen am lu mat seen juróomi pancarte bu kii yoree bu français bi kii yor bu portugais bi kii yor bu espagnol bi kii yor bu arabe bi kii yor ngeen bind ko téye ko taxaw ci digg hôtel bi di ko wax di ko làkk ci anglais kii di kii bi di ko wax ci anglais kii yor portugais bi di ko wax ci portugais ngeen bind turi ki nga xam ne moom ngeen di ñaxtu di tudd turam muy bu fekkee Mame Mbaye Niang la wala Macky Sall ngeen bind ko ba tubaab yi nekk foofu ñi romb ñëpp xam li xew xam ne hôtel bi ay sàcc ñoo fi nekk jël suñu alal ñoo fi nekk ñuy assassiné ay nit ñoo fi nekk jël photo xale yi ñuy rey ngeen def ko ci benn pancarte boo xam ne ñii ñu assassiné ñëpp te Macky Sall rey leen ngeen génne ko ba tubaab yëpp gis ko assassin la ngeen wax ko ci français wax ko ci anglais wax ko ci espagnol ci portugais wax ko lépp loolu mooy manifestation taxaw di saaga il faut aussi France dëkk bu ki nekk ci diaspora war nga am say pancarte yoo préparé taxaw di xaar ci wàllu xale yi ñuy rey nervi yi ñuy armé quarante cinq milliards armé yi pétrole et gaz bi ñu sàcc dictature gi nekk ci réew mi mille personnes yu ñu dugal ci kaso yi assassinat yi ñuy def loolu lépp ay thème la yoo xam ne nguur gee ko nekk di ko def ngeen jël ko préparé ko def ko ci ay këyit yu bind ko ci làkk réew mi ngeen nekk taxaw di xaar fu fay waay wàcce hôtel ak fu mënti nekk ngeen taxaw ci mbedd yi génn ko tubaab yëpp di gis loolu mooy communication bu ngeen ci amee ko mën a wax ci yéen koo xam ne làmmiñ wi set na mën na communication am na fasaaxa am na rhétorique ngeen jox ko kàddu gi ñëpp bañ di waxat kenn rek di wax lakk ko wax ko ci làkk réew mi wax ko ba mu leer mu génne lépp mu leer tubaab yeeg opinion ba fa nekk ñëpp xam ne loolu la ñuy xeexee mais bàyyi tamit fu ngeen dem sa mbaxloo dégg affaire ndongo daara c'est pas aussi parce que lii may wax ni dama koy wax parce dama gis li xew Portugal jàmbaar ngeen ci mobilisation jàmbaar ngeen ci ñëw jàmbaar ngeen ci xeex mais xeex ci xel lañ koy def xeex kenn du ko def ci parax parax il faut que bu ngeen bëggee xeex bi am njëriñ ñu ko ci xel intelligence organisation méthode mais sa mbëx loo kii jaar fekk am na kenn koo xam ne mi ngi woon démb ci terrain bi ci match bi Sénégal Brésil démb am benn jigéen bu fa dem loolu mooy communication elle est intelligente kookoo yeewu jël ab morsom sërëm weex tàll bind ci lim ci bind Macky Sall di dictateur dem ba ci biir stade bi lem ko ba mu jekk toog ci bàyyi ba match bi commencé mu jóg ci digg stade daal di koy tàllal kooku stade bi yëpp koy liir ñëpp koy xam li ñuy wax loolu la ñuy communiquer waa Greenpeace noonu la ñuy communiquer waa Amnesty International tubaab yi nga xam ne ñoo amum xel noonu la ñuy noonu la ñuy ñaxtoo pourquoi mun leen a xool ni àdduna bi di def ci ñaxtu ci lépp ngeen di roy ci àdduna bi di xool waa adduna bi waram xel yi ni ñuy def ngeen di ko def yéen sénégalais yi pourquoi may profito di féliciter ndaw soosu xawma ko Portugal ka dem ca stade ba talal fa benn pancarte bu rëy bind ci Macky Sall dictateur loolu moom na ko ñëpp roy noonu la ñuy xeexee noonu la ñuy xeexee fu ngeen dem na ngeen njëgënaayoo seen ay morceau seen ay pancarte seen ay tissu yu ngeen bind mbind mu leer naññ def ci seen thème seen slogan bi ngeen xam ne moom ngeen bëgg a ñaxtoo ngeen bind ko parce que gis nga wax li ngay wax yëpp boo ko defee ci pancarte benn pancarte boo bind tàllal ko moo gën junni wax. ndax wax dafa metti te ñëpp mën nañu koo bañ a dégg waaye li nga bëgg a wax boo ko bindee yëkkati ko téye ko ba mu leer ba ñëpp gis ko nga bind ko ci làkk yi nga xam ne ñi nga bëgg a waxal làkk boobu lañu dégg bu dee espagnol nga def ko ci espagnol français nga def ko ci français portugais nga def ko il faut que ñu àgg ci xeex bi niveau boobu parce que loolu dafa des ba léegi sam ndoxloo bi moo bari te il faut que ñu arrêté Sadio Nanki elle s'appelle je la félicite je la connais pas xawma ko mais maa ngi profité ci Sadio Nanki moom xam na ni ñuy xeexee il faut que maintenant nous adoptions la méthode Sadio Les méthodes méthode Bob, dañ koy tout koy méthode Sadio man désormais léegi méthode Sadio Nanki laa koy tuddee mooy jël sa toog sa bind li bind xool say slogan Macky Sall dictateur sañu 94 milliards Macky assassin ak photo yi bu ngeen di mën a yokk photo yi yëpp ngeen préparé ko dem ci imprimerie yi jël seen xaalis ngeen fay ko ñu defal leen ay pancarte yu baax yu leer ak seen i thème yu leer yoo xam ne du am faute ngeen corriger faute yi jël ay photo image teg ko ci parce que xeex bi day soo ko commencé ay pancarte def ci ay ci bu dee japonais ñu def ci ak ñu bind ko ci japonais bu dee Chine ñu bind ko ci chinois États-Unis ñu def ko ci anglais Canada ñu def ko ci anglais ak français France ñu def ko France Angleterre ñu def ko ci anglais Turquie ñu def ko en turc bu fekkee dëkk yëpp ngeen taxaw ku fa wàcc ngeen génn seen i pancarte def ko de façon professionnelle aussi ñuy utiliser maintenant la méthode Sadio Nanki désormais man Sadio Nanki laa ko tuddee xawma ko mais elle est extraordinaire j'ai bien aimé li mu def franchement c'est du professionnel Quoi, ni mu liggéeyee liggéey bu set na liggéey.

lan ngay xeex damaa jàpp ne li ñuy xeex mooy li Macky def ci Sénégal te jaarul yoon ñu fexe ba àdduna bi yëpp xam ko ndax ñëpp ànd ak ñun ci xeex boobu ñu jëlee fi Macky Sall loolu mooy suñu bëgg-bëgg waaw wala déet su fekkee loolu dafa am nu ñu koy defee tubaab yi mënoo ñëw ne leen Macky Sall li mu nekkee Sénégal du dëgg du yoon dañoo bëgg adduna bi yëpp ànd nañ ñun ci xeex bi ñuy xeex ñu jële ko fi boo ko bëggee def tubaab tubaab dafa koy wax ne ko Macky lan lay def li ngay ñaxtu lan la te loolu il faut nga wax ko ba mën a dugg ci bopp tubaab bi du sànni ay nen ci oto ay sotti ay farine ci oto moo tax tubaab bi di comprendre tubaab bi da koy expliquer ci sa làmmiñ mu leer wala nga bind ko ci pancarte mu mën koo liir xam li ngay xeex lan la mu mën cee ànd ak yow wala mu mën cee ànd ak dañuy xeex cim xel te bàyyi pëyi pëyi affaire bu du daay rek affaire bu du daaree alxuraan yu ñuy ku nekk di yuuxu c'est pas comme ça te fu ngeen dem ngeen di wu jël ñi fi dàq wax ngeen jox leen ñu wax ñi mënta wax nañu noppi nañu bàyyi fu ñu dem ku nekk bëgg a wax ku nekk a jël micro boo demee yeewu askan ñëppay bëgg a wax nga dem F24 ku nekk di wax nañu bàyyi loolu te bu ñuy ànd ñu xool ñi ci dàq wax ñi ci am ay compétence ñu jox leen nit ku nekk dafa am lu man lu sa morom mënul nga mën ko luñu lu ñu ciy def luñ ciy def lu ne nañu xool ñi ko dàq ñu jox leen ko ñi def topp ci ginnaaw il faut que li ñuy xeex tamit ñu yóbbu ko ci niveau boo xam ne niveau bu jaar yoon bu correct la c'est important li may wax non activiste yi mënu leen concerté loolu mënut a nekk activiste yi kenn ku ci nekk jàpp nga ne yow kàngam nga borom xam-xam nga yaa man ñëpp tout ça woote wax naa lu ne ils étaient ensemble au départ ñëpp tous les activistes étaient ensemble ci page bi ñoom ñëpp kenn ku ne yaa génn dem sa yoon yàggul woote naa fi mais voilà loolu bu ko loolu mënut a ne loolu moom man jéem naa ko ba tay sottiwul bañ koy soog a taxawal woo naa ñu bari dugal leen ci mais ñoom ñëpp ay expert ay sa yoon yor sa yëfu bopp li ma war a wax dinaa ko wax voilà c'est tout sama xalaat laa jël teg ci ko taabal ku def baax na ku deful baax na du ma forcer kenn moomuma kenn kenn moomuma mais concerté concerté loolu moom voilà gars yi bëgg nañ ko mais activistes yi ñoom kenn ku ci yaakaar nga ne expert nga ci sa domaine ils ont le droit voilà dafa am nu ñuy manifester tubaab bi dafa am nu ñuy manifester mu am impact àdduna bi yépp ànd ak ñoom ci loolu jàng leen ci tubaab bi yéen a ngi dëkk tubaab bi jàng leen tubaab bi waaye taxaw génn ay Portugal Espagne di toj di dajji di saaga ndey di patati patata loolu se sauvage c'est sauvage loolu dafa xew loolu dafa xew yi loolu Sénégal lañ koy def Sénégal la valable loolu mais boo génn Sénégal mënoo koo def ci dëkk tubaab bi tubaab bi boo leen bëggee am boo duggee ñu ànd ak yow dafa am nooy comporté woo dafa am nooy ñaxtoo dafa am noo koy defee Sénégal nag moom c'est un pays de foofu moom gat sa gat sa dóorante rayante yaaxoo ak su ak saaga ndey boo génnee Sénégal nag da ngaa nekk nekk gis ngeen ne ni ñuy ñaxtoo seen ay la ñuy defar dafa seen ay pancarte taxaw di wax ju leer yow seen i di wax ci ko làkk ci muy leer muy dugg ci bopp tubaab bi ñuy ànd ak yow wala ñu ñàkk ànd ak yow leen taxaw ci kanamu ay hôtel di saaga ndey ay sa nangam taanu mais koy waxal Mame Mbaye Niang ngay saaga ndey yaag Mame Mbaye Niang kese la tubaab bi bokkuñu ci li ngay xeex yëpp yow ak Mame Mbaye dafa jar loolu loolu jëru déplacé wu loolu kay def ko ci Facebook bi wala nga dem Sénégal jàkkaarloog Mame Mbaye mais boo génn Portugal wala Espagne wala fenn opinion nationale bi ci dëkk di nga nekk mbooloo la nga bëgg ñu xam li xew ci sa réew bu ñu ànd ak yow ci loolu lool mooy loolu lañ bëgg Macky 14 h l'accès à aéroport à peu près à 15 h 30 16 h dina ko résidence 32 rue Vineuse dans le 16e arrondissement métro donc Trocadéro ligne 6 le Bir Hakeim la ligne 6 Bir Hakeim le Trocadéro 32 rue Vineuse 32 rue Vineuse dans le 16e arrondissement à la résidence de l' ambassadeur foofu lay nekk na ko ñëpp waajal na ñëpp jóg na foofa fees dell dell dell ak ay nit waaye waxuma ñëw rek taxaw de na ku nekk indi sa pancarte na ku nekk indi sa banderole na ngeen ci def seen ay slogan li nekk Sénégal yëpp te doxul xam ngeen ko rey gi armes yi ñu jënd ah, pétrole bi ñu sàcc gaz bi 94 milliards budget bi ñuy détourné corruption bi li fa nekk yëpp média yi TFM ñoom ñëpp slogan yi ñu yëkkati ak waa ni ñuy isolé waa Casamance ni ñuy bundu xataalee Pastef Ousmane Sonko seen complot yi thème yi bari na yooyu yëpp kenn ku ci nekk mën naa xool thème bi ko ñun mu bind ko bind bu leer bu set wicc ñëw taxaw xeexloo wuñ leen xuloo wuñ leen manifestation yi def contre les Macky Sall ak ay Mame Mbaye Niang du xeex du xuloo Europe dëkk tubaab bi kenn du fa xeex kenn du fa waxuñu kenn mu toj waxuñu kenn mu dóor waxuñu kenn mu mais am ngeen liberté dans les pays européens ñëw taxaw Macky Sall génn wala ay nitam ngeen ñëw taxaw fa mu nekk seen ay na ngeen da ngeen manifester da ngeen ñaxtu droit la bi signé ci am nga ci waxuñu ay ay violence ay dóorante ay loolu taxlu man xeexloowu ma kenn dóorloowu ma kenn lu dul Sénégal Sénégal la ñuy xeexee Sénégal la ñuy reyante mais dëkk tubaab bi kenn reyantoo fa kenn parce que seen yoon mayewu ko te ñoom dañoo respecté yoon comme Sénégal Macky respecté wul yoon doxul ci droit dañuy gat sa gat sa ak moom reyante foofu Macky Sall moo fa indi sauvagerie moo dañ koy tontu ci sauvage mais dëkk tubaab yi yoon a fay dox comme yoon a fay dox nag jël leen lépp lu leen yoon may te li leen yoon may na ngeen ñaxtu ci ni ko yoon diglee mooy ut seen ay pancarte wax ci seenu làmmiñ waaye saagaloowuñ leen menacé woowuñ leen dóorloo wuñ leen kenn il faut pas rentrer dans ça voilà képp ku koy def yaa ngi sabote suñu liggéey non n'y a pas de rivalité il faut arrêter de dire les activités sénégalaises on veut la rivalité à l'extrême il faut arrêter faut pas être des dictateurs aussi il faut pas faire comme Macky Sall nit ñi moomu leen les ba ngeen leen bëggee imposer les kenn ku ne yaa moom sa bopp faut arrêter nit ñi bokkuñu ndey bokkuñu baay yàlla boolewu leen dara boolewu leen kenn ku ci nekk yaayoo sa bopp di def li la neex Facebook bi yaa ngi nii yow yow sa page di bind lu la neex kenn moomu la pourquoi nga bëgg a boole nit ñi par force ki jóg taxaw di wax moo xam li ko neex muy wax keneen di wax kenn ku nekk wax mun leen a forcer nit ñi aussi ñu ànd faut arrêté aussi ñii Pastef la ñu ñii Macky Sall la ñuy kër il faut pas être des dictateurs aussi qu'est-ce que vous voulez activiste sénégalais da nga leen a moom kenn chacun est libre les gens sont libres suñu mënee ànd mën a ànd mënuñoo ànd kenn ku nekk dem il faut respecter le choix des gens man ñu and gënal mais su ko est-ce que dama leen ko mëna forcer il faut ngeen am tolérance aussi des fois vous êtes aussi dans une dictature pire que dictature de Macky Sall aucune tolérance vous jugez tout le monde nit ñi mëna and kay mo c'est l'idéal mais bëgg du ngeen ko forcer nit ñi Donc, il faut, qu'on soit mobilisé, déterminé, concerté, organisé, méthodique à l'étranger. C'est important. C'est très important. C'est très important. page activiste bii may laay fee bañu ko ubbee ñoom ñëpp la ci dougal, amul ci am ñi ñu may déglu woo ñu ci bari maa leen ci dougal, woo dougal, ñoom ñëpp ñoo ci dem def lépp mais dañuy dem ba benn moment kenn ku nekk dem sayon, yoon ko ku nekk dem kenn ko nekk dem ma gigi rek a fi dess. Ma gigi rek a fi dess, ñu jël ñeneen dougal ci. mais ñi ñu ko sosandoo woon au départ ñëpp dem nañ léegi laaj leen na ñoom lu tax ñu dem loolu moom noonu lay demee quoi donc bu ñu fi nekk di insister di wax kërëb kërëb donc yooyu moom xam nga voilà quoi loolu moom nañ ko nangu maa gii rek fa des si ñi nga xam ne ñoo dem nañ seen yoon lu tax ñu dem nag da ngeen leen koy laaj man foofu lu tax ñu dem ñu yekk-jekk ñu ne way pour des ko lay damay dem ba beneen yoon kër kenn ku nekk yaa ut nga say lay dem

ñu ci bari dañoo daw ne wuy sëriñ si ñuy tudd diina ji tarexe yi waaw ñu ci bari loolu moo tax ñu dem waaw page bi xam nga boo ki nekkee léeg-léeg tarexe yi ngay tudd sëriñ bi kenn ñoom ñu ko doon wax ñu bari dem dañu ŋàññi ci loolu tey ñoom dañoo dem ba am na ci ñenn ñoo xam ne ñu ngi tudd tarexe yi di tudd sëriñ si parce que dëgg mooy dëgg dëgg mooy dëgg page bi dafa libre am na ñu fi nekkoon ñoo xam ne dañu ànd ak Sonko am ñoo xam ne am na ñoo xam ne xuloo nañ ci page bi ndax Sonko la ñuy ñi ne duñ défendre ñi ki ko nekk am ko àndal ñii ànd ñëw Sonko ñii ànd ak ñeneen ñii ànd ak Sonko ñëpp nekk ci page dañuy live ñu respectante mu nekk démocratie waaye boo tuddee sujet sëriñ marabu ñu commencé fippu ñooñu xëy na loolu moo tax ñu daw làqatu bëgguñu cee feeñ parce que ñoom bëgguñoo tudd ay sëriñ au nañ ba gis l'évidence xam nañ fi sëriñ si maa ko théorisé ay at ma di wax ñu di ma saaga tey ñëpp d'accord nañ ci réew mi toll na foo xam ne tey yéen ñëpp gis ngeen ne c'est une mafia mais bu ñu njattee Macky Sall ñu jóg bu ñu Macky Sall di rey ñu noppi c'est une mafia te ba ma koy wax booba gent bi fenkagul man awma lu may laale ko lu may ci je suis constant dans mes positions du début jusqu'à aujourd'hui ku ci am say petit calcul nag am looy laal ak loo dul laal am loo bëgg say projet bopp bëgg say buzz bopp su la neexee nga def lu la neex je le respecte je juge personne tey ñëpp a ngi wax ci maraay ñoom ñëpp parce que aujourd'hui c'est d'actualité Dieu nous a donné raison li ñu doon wax ba kenn ñemewu ko wax au départ tey ñëpp ñu koy wax parce que dañu dem ba teg ci baaraam ñun nag ba ñu koy wax booba ñu nag xale yi dee ca njaal bi nag ba ñu tuumaalee ñu ne ay fen la ba ñu dee ñu ne ñoom ñoo yem dañoo ne ñu ne lii du am na ñoo xam nag booy xeex dëgg au départ da nga ciy mais boo demee ba dëgg bi siiw ñoom ñëpp dañuy ñëw dugg ci dëgg bi nag pour dëgg cee daaj waaye ba ñuy xeex naan mafia politico maraboutique booba kenn ñemewu ko tudd tey nag ku ne mën nga ko wax tey ku ne am nga fit waaye ndokk ndax yàlla du nit yàlla du nit du lu ñu ndamoo du lu ñu dara ñun dañuy xeex on s'en fout tout ça waaw yéen a ngi tax ma taxaw ci li may taxul mais bu ngeen di commenté moo tax ñaar du ma su may live damay bëgg a wax ma a dem mais su ma xoolee commentaire gis ci yenn mots yi dellu si dellu si en général da ngeen may dévier li ma waroon wax sax du ma ko wax damay ñëw ci seen commentaire moo tax ñaar du ma bëgg di lire ay commentaire damay bëgg li ma war a wax su ma ko waxee rek pare ci dem sama yoon mais ah, ñu ci bari loolu moo tax ñu daw ñu ci bari xam nañu Akhenaton nag ma xamal leen ko waxuma la sax ci groupe bi ñi fi nekkoon waaye même ci état bi Pastef milieu maraboutique bi dama tous les milieux ñëpp a na Akhenaton waaye kenn du taxaw ne xam naa Akhenaton kenn moom kenn la xam kenn la wax na maa ngi wax ak moom ci suuf kenn ñemewu ko identifier moom dañu ko moom ñëppay làqatu ndax li muy tudd kenn ñemewu koo tudd waaye nag di nga wax ak moom ci suuf ci suuf gi moom da ngay xàqataay ak moom wax ak moom ree waaye ci mbedd mi ah akaytoon xawma ko yii kooku je ko ne pas man xam naa me dama ne pat ndok du ma ci weer kenn nag du ma mës tudd kenn du ma ci weer kenn respecté naa leen seen choix yéen dama leen di protéger xam ngeen ma ci suuf mais xamu leen ma ci kaw li may kaas di ko yëkkati ngeen bañ cee feeñ yéen ñëpp ànd ngeen man ci suuf xam ngeen ma xam waaye man j'assume amul benn problème merewu ma leen merewu ma ci kenn j'assume ñoom ñëpp a may déglu ñëpp a may liir su ma bindee sama poste ñëpp ay liir am na xam ne dañuy tiim ca kaw di la liir am duñu commenté duñu laal mais saa yu ñu xëyee akadakal la ñuy wër di xool wax tey ak lu mu bind billahi wallahi wa taala des centaines de milliers de sénégalais ñooy xëy di ma topp ndax li may wax xam nañ ko xam nañ ne dëgg la waaye amuñu fitu assumer ko comme ni ma koy assumer bëgg nañ di ko dégg bëgg nañ di ko gis bëgg nañ di ko déglu waaye nag amuñu fitu assumer ko wala wax ko xam xam xam giñ may xam rek taxaw ne xam nañ ma dong ñemewuñ ko ndax réew mi ak jaay doole fi am ak ndoggote fi am diine amu fi adduna amu fi Macky Sall mooy ndoggatu ñenn ñu ko wax mu tëj rey sëriñ si ndoggatu ñeneen ñi ku fi am xalaat bu bokkul seen xalaat ñu tëkku la menacé la ñeme woo Macky Sall ñeme woo sëriñ si ñaar ñooñu nag ñooy le système mafia mooy la mafia politico maraboutique bi nga xam ne ñoo jël seen bëgg-bëgg teg ko ci kaw askan politicien bi Macky Sall ak sëriñ bi xalif bi xalif yi ñoo ànd nag ne jël askan def leen ay jàmm kenn du yëngu Akhenaton moom lank na moom du ci bokk moom Macky du ko noot sëriñ bi du wax xalaatam ci réew mi ndax yi la bokk kenn ci par force ku mu neex noonu la Akhenaton moom jigi tamit ñëw na moom it bokku ci day taxaw moom it li mu bëgg wax da koy par force voilà après nag man ak moom ñun ñooy test yi waaw jigi moom jigi sax ak tane ndax moom am ngeen téléphone am di ngeen ko woo jigi am na ñuy wax ak moom man nag man gars dañ may daw comme may dama leen daw ah ñu ci bari bëgguma wax ak ñoom ah, Sénégal bi noonu mooy réew naa waaye eh, man sama waxi démb mooy sama wax tey yéen ñi ma yàgg topp musuma soppiku si ma taxaw laa taxaw ba léegi parce que lu ma gëm la lu foor la ci man te saa suñu demee yàlla di ma jox dëgg ci li may kaas jàllu muus li may teg saa yoo wàqee sa loxo xeeñ il faut nga daj dara lu xasaw mafia moo nekk ci réew mi noggatu nit ñi sëriñ si ak politiciens yi ñoo noggatu askan wi toog ci seen bopp yi def leen ay jaam di leen dunde lekk alalu di ko détourné seddoo suuf si nappaaja jéegi jël alalu réew lekk lii taxul woon sax may laay parce que yéenay commenté bi dugal ma foofu bref on revient donc si ni ñu war a ci diaspora bi def ay pancarte ut ay slogan ut ay micro ut ay haut-parleur yu bax yu leer ngeen cotiser Espagne Espagne ut ay ay micro yu baax au parleur wax ji di leer ngeen da xool ki dàq wax ci yéen ki gën a xam sujet yi ki gën a am actualité ki nga xam ne moo ci gën a mën neex a dégg ay waxam mën na dugg ci xol ngeen jox ko kàddu gi mu wax te ngeen a iñaanante bi bàyyi siisante bi bàyyi soxorante bi bàyyi lu tax muy wax moom moo siiw man siiwuma su waxee daf may féete kaw mooy rek bàyyi leen yooyu réew bi amul lu ñuy féete kaw lu ñuy féete suuf amul kii moom moo war a jiite wuruma képp koo xam ne mën na li muy def nañ ko jiital man lépp lu may def ku ko mën bàyyi naa la ci kanam xëccoo ma dara sama yónnee ko ci li may def boo ma ko kay def ko suma sañoon sax nga daaq nga daaq ko di ko def ma noppi a di la déglu parce que tamit finalement c'est quoi lan la ñu bëgg. lan la ñu bëgg mais égoïste égoïste soxor bi nekk ci sénégalais yi na ci biir patriotes yi iñaan ku la ci gën a iñaan ku la ci gën a soxor jalousie kenn ku ci nekk yaa ngi siis sa morom yaa ngi kërë kërë c'est quoi ça.

ngeen def ko ci pancarte bu yaatu pancarte bu ngeen defar ba mu baax bind ko bu bu bind muy fees dafa am technique aussi ni ñuy bindee ni ñuy communiquer mënoo jël benn pancarte bind ko bind bu baree bari déedéet da ngay jël benn slogan bu gàtt nga bind ko bind bu rëy nga def ko ci pancarte bi téye ko bu ci bind lu baree bari dafa am technique dafa am ni ñuy communiquer il faut que pancarte bi aéré lisible mu bañ a chargé wu bu ci def lu baree bari benn benn benn lu ndaw nga ci def bind ko bind bu rëy bu bu neex a gis neex a liir nga téye ko taxaw fu porté ngeen filmer ko taxaw fu foo xam ne ku romb gis ko. soo ko manee wax nga wax ko yuuxu ko wax ko ci wax bu leer loolu moo ëpp solo fukki junni yoon saaga ndey yeeg mambay ñaa li yeeg yooyu yëpp yooyu yëpp amul njëriñ saaga ndey moom bu ngeen ko defee sénégalais yi ngeen waaw sénégalais yi xam nañ li xew bu ngeen demee ba Portugal di saaga mambay ñaa fu ngeen waa waxu leen portugais waxu leen ak bi te adduna bi ñoo ñu war a dégg fi mu toll nii diaspora bi seen xeex mooy opinion publique internationale war a xam li xew Sénégal kon changé na ñuy xeexee def ko ci xam-xam bañ koo def ci pas-pas def ko ci ay mer xol yu tàng def ko ci ay saagante ndey loolu Sénégal la am Sénégal moo am yooyu mais bu ñu génnee Sénégal loolu amul jël photo yi nga xam ne mooy xale yu ñu rey seen deret yi tuuru am ngeen foto yi am ngeen vidéo yi ngeen jël foto yi ni xale yu tëddee seen deret yi tuur yëpp ngeen jël foto yi ak deret yi ngeen def ko ci ay pancarte benn bâche bu rëy jël benn ngan di pancarte wala banderole bu rëy jël photo xale yi def ko ci dem ci imprimerie ngeen fay ñu jël photo xale yeeg image yeeg dégg nga maam ni mu ni ñuy nàccee ak ni ñu leen ay bal yëpp ngeen def ko ci pancarte yi assassiné bind ci kaw ah jeune assassiné par Macky Sall assassiné par Macky Sall ci kaw génocide de Macky Sall cochet doy na sëkk ak photo yi ça parle bu dee espagnol ngeen def ko ci espagnol français français dégg nga maam portugais portugais anglais anglais kese benn phrase bu simple assassiné par Macky Sall ak seeni photo yi nac loolu loolu loolu leneen la

mun leen nekk diaspora bi nekk ci dëkk tubaab bi di fi am salaire di fi dund am fi teraanga ba noppi mun leen fee am xam-xam bu ngeen communiquer li ngeen war a njëkk a jàng ci dëkk tubaab bi mooy xam-xam bu ñuy communiquer bu ngeen ko jàngul ci école tamit roy ko ci tubaab bi di xool li ñuy def ngeen koy toppandoo nit boo nekkee ci am dëkk wala ci am réew da ngay xool la ñuy def te mu tegu ci xel nga fexe ba sa xel mi nga di ko nàmb di defandoog ñoom loolee bu ko sa diine nangoo lu lu la sa diine terewul sa cosaan terewul waaye xam-xamu a la japonais bi di def chinois bi di def américain bi di def qatari bi di def saoudien bi di def yow y a un problème y a un problème jël photo booy lu am importance photo yi rey ah jël seen photo nervi ak fajal ngeen jël ko teg ko ci kaw pancarte banderole yu gudd ay banderole cinq wax ma ay ah mën ngeen am ay banderole yu deux mètres trois mètres mais bu ngeen mënee am banderole bu cinq mètres banderole bu six sept mètres ngan di banderole ngeen talal ko xëcc ko téye ko yëkkati ko nga xam ne foo toll di ko gis ngeen jël photo xale yi def ci def ci Macky Sall assassin jël ay fetale ci ay kalachnikov teg ci bal yi ngeen door ngir yëkkati ko adduna bi yëpp di ko gis ak drapeau Sénégal bi vert jaune rouge beeg étoile bi Macky Sall assassin nga xam ne boo toggee un mètre da nga un kilomètre da koy gis bu dee espagnol ngeen bind ko en espagnol français ngeen def ko en français mais loolu mooy communication loolu mooy loolu la ñuy xeexee ci tukku tubaab bi mais taxaw ci hôtel yi sa nangam nangamtaanu ndey di naan nangamtaan sa nday il faut arrêter ça arrêter voilà loolu du xeex loolu affaire làppato la kon ñi ngi invité ñi war a dem cour pénal international le droit le 23 yéen tamit prépa bu leen fa dem taxaw di wax ak yuuxu de matériel de communication ngeen ñi haut-parleur yu baax micro yu baax pancarte ak ay banderole yu baax ak ay slogan yu baax il faut ngeen équipé wu. dugal seen loxo ci poos dem ci imprimé yi def ay impression yu baax ay pancarte yu baax yoo xam ne bii benn nit la yii ay un mètre deux mètres la bii ay cinq mètres six mètres bu gudd slogan yu garaaw gars yi taxaw tiimale ko ba àdduna télé àdduna bi yëpp parce que Sénégal léegi ñëpp a koy déglu ñëpp ay xool li xew Sénégal presse internationale bi fu ngeen dem ñu fekk leen fa waaye waaye def leen affaire professionnelle parce que bu ngeen di manifester te jaarul ci CNN du ko génne BBC du ko génne Le Monde kenn du ko France 24 kenn du ko génne parce que affaire lu làppata ngeen di def da leen dox ci xam-xam di def ci xam-xam bu ngeen bëggee jàppale réew mi bëgg réew mi soppiku. ut benn ngan di banderole waay waa Paris war ngeen mën jóg jël benn banderole bu 10 mètres wala 20 mètres ngan di banderole impression dem ci imprimer lu ñu fay ko def ci ngan di slogan benn jour ñun ñëpp ñu wàccandoo sur les Champs-Élysées téye

loolu mooy xeex dem ca digg Champs-Élysées gu ne ko fa ràcc wala nga dem ca Tour Eiffel ga en face Tour Eiffel nga ci kaw pont bi nga ci banderole bi ñëpp jàpp ci ñu taxaw ko yëkkati ko adduna bi yëpp di ko gis Macky Sall fotom na ràng ci kaw ak fetel bi mu yore tiim xale yi di rey xale yi di daanu benn pat benn nga di banderole non dugg ma ne xeexagu leen de communiqué gu leen lii mooy communication bi lii mooy xeex bi mais saagante ndey.

yu A3 yu ndaw def ay paquet jël Macky Sall teg ci kaw ak photo yeeg xale yi expliquer ci suuf tuuti que Macky Sall dafa nekk di installer dictature Sénégal dafay recruter ay nervi commander ay armes présidence jox ko nervi yi ñuy rey sénégalais yi muy empêcher les opposants ñu participer ci ay élections muy tànn kuy bokk ku dul bokk ñu intégrer ko troisième mandat mu ne day bokk par force infiltrer armée bi police bi gendarmerie bi bëgg fi imposer dictature Bindu, ko lu ci phrase def ko ci tout que ngeen tax mais qu'est-ce qui se passe nga jël prospectus bu ndaw jox ko de la euh, cour cour pénal international explication à trois sur le génocide de Macky ñi ñu photo yi papier bu 3 non A5 wala A6 mooy moitié papier a photo ci kaw ak ñu ci phrases li Sénégal te kenn andu ñu bind ko bind bu en anglais en anglais parce que cour de la pénal international lañ anglais en anglais def en français France mën nañ ko def ñëpp Belgique Allemagne ñëpp distribuer parce que tamit bi aussi. ñag yi ñoom mën nañu xeex ñag yi ñoom ñoom ñoom loolu la ñuy def ñoom ils savent bien comment se battre mais ñun sénégalais ñoo des ba léegi ci xeex bi parce que voilà affaire làppat rek la def ay flyers mu ngoog ay flyers flyers exactement flyers nga xam ne ñii bu tubaab yi da nga leen koy jox nañ koy lire xool a ah, d' accord ok ngeen bàyyi ci benn contact benn numéro téléphone ki ko def na fa bàyyi numéro téléphone pour que tubaab bi bu bëggee ay renseignement parce que tubaab bi romb xamoo kan la na nekk bu nekk CIA mën na nekk tubaab bu nekk DGSE na nekk tubaab bu nekk e, rajo Canada mën na nekk tubaab bu nekk ci télévision mën na nekk tubaab boo xam ne day nekk ci ONG xamoo ki nga jox kii bi lan la mën na dem ba nga bàyyi ci email ak numéro téléphone contact boo xam ne tubaab bi mën na dem ba contacter la ci am leneen loo xam ne mën na la ko ubbi ci ay possibilités ay ko on sait jamais Qui a téléphone email c'est important c'est ça la communication c'est une excellente idée ngam pancarte bu 10 mètres ko ba mu jekk defar ko ba mu 10 20 personnes ñu dem ay monter Tour Eiffel dem premier niveau Tour Eiffel deuxième niveau dem ba ag, ñu jël banderole bi dal di koy génne tallal ko ci kaw Tour Eiffel bi yéeg ba ci kaw premier niveau bi talal fa bâche bi téye ko fa 10 minutes 20 minutes gars yëpp filmer ko tout ça adduna bi yëpp gis ko ñu tasaare ko c'est une très bonne idée façon bu xeex bu efficace la loolu moo gën taxaw ci hôtel yi di saaga nday di toj di dóor ay ay farine ki ay nen yooyu il faut arrêter ça waaye gars yi faut faut dépasser ça. équipez-vous préparez-vous ut leen ay équipement xeex communication dafa am Nous ñu koy defee ut ay rajo yu baax haut-parleur yu leer ut ay pancarte yu baax ay banderole yu baax ay flyer yu mais ay slogan yu baax baax slogan yu baax a baax teg ko yëpp mu nekk ay slogan yo xam dañ koy pour dégg nga man fexe ba loolu lépp mën a leer ci bopp tubaab kon dañu war a euh, professionnaliser xeex bi ñuy xeex. adresse Paris bi joxe nañ ko c'est au 32 rue Vineuse donc. 32 rue Vineuze, Paris 16e. Métro ligne 6. Arrêt biir hakem ou Trocadéro ñaar yëpp ligne six la ñaari arrêt moo am Trocadéro donc na mii noonu ñu affiché ci kaw mooy adresse su mooy adresse su adresse su hmm, fi ngeen war a daje fi Macky Sall di dal ci Paris 32 rue Vineuse adresse bi moo nekk noonu 32 rue Vineuse Paris 16e, métro ligne 6, arrêt Bir Akem ou Trocadéro répété n'importe, ko répétez waat Facebook gis YouTube aussi gis adresse 32 rue Vinez. est-ce que l'air, na 14 heures 14 heures 30 lay agsi Paris 16 heures dina ko fekk foofu rue Village ñoom nag ñu ngi waajal di préparer yoo xam naa ñoom dañuy xeex mais yéen xeexu leen yéen da ngeen di manifester seen mécontentement dictature gi nekk Sénégal ngeen bëgg a yëkkati ba mu arrêté ko na Sénégal gépp jëkk na Paris gépp jóg France gépp nañ jóg daje Paris dem foofu mu dal duñ ko may jàmm ndax mayul kenn jàmm ni mu tëncee Ousmane Sonko tëj ko ci këram ba ne ko génn noonu lañ ko tëjee daañu ko parce que nee na Ousmane Sonko amul liberté moom Macky Sall du am que moom Macky Sall jubut alalu réew mi yëpp sàcc na ko ci ay fen lay dox guddi ak bëccëg fekk ku jub ku ñëpp jublu réew mi yëpp jublu nga di ko jaay doole parce que yaa yor armée police gendarmerie ak justice di leen manipuler tëj ci kër te tegoo ko fenn lu ci ay tappale bu ñu ko bàyyee muy tambambalu dem Portugal dem France dem Russie dem di wër àdduna bi di tambambalu te ñoom ñëpp ay sàcc lañu ak i mambéy ñaa bu ñu leen mënee bàyyi ñoom ñu def lu leen neex ñàkk fayda la ñàkk fayda ngir Ousmane Sonko nangu passeport am tëj ko këram ci ay tappale yoo xam ne dara dëgg dëgg lépp ay fen la ñu taxaw ji bàyyi li bàyyi ko moom muy wër avion jël suñu avion di tambambalu ci àdduna bi jël suñu alal di ko lekk di nappaage seeni caga sàcc suñu alal ñu bàyyi leen bu ñu ko mënee def loolu si ñàkk fayda ci ñun la combat bi li tax mu jafe mooy kenn du déglu kenn kenn ku ci yaakaar nga expert nga kenn ku ne yaakaar nga xam nga kenn ku ne am nga réyu ki la gën a xam gën laa mën nga mën koo déglu déedéet du demee noonu de kenn ku ñu yaakaar nga ne yow am nga voilà loolu moo tax ko bi du yomb bu kii bu kii waxee jëm fii kii wax jëm fee kenn ku ñu la jàpp nga ne yow am nga xam-xam ci li ngay def te ñi ñuy wax xamuñu li ñuy wax voilà c'est la vérité. kon loolu ama am solo la ñu préparé aussi beneen rencontre bi nga xam ne am na suba ak naa suba place Bognard bi nga xam ne foofu au niveau de la bourse de Paris dans le premier ou deuxième arrondissement adresse bi gars yi nañ ko ci Facebook bi ñëpp xam nañ ko yéen yu nekk Paris waa France yéen ñëpp ngeen préparé wu suba tamit parce que foofu mooy rencontre bi nga xam ne fa la ñu invité Macky Sall ki sàcckat yi tappalekat yi dóorkatu marto yi dem fofu tamit manifeste ba mu saf sàpp ba ñepp xam li xew senegal ba Macky Sall dootul delu senegal Emmanuel Macron ne ko togal fii do delu wa parce que ay wëyi lañu ay bandi lañ kon euh, du du yàgg du gudd lii képp laa amoon lu may wax pour ñu organiser suñu manifestation yi def ci xam-xam def ci méthode def ci organisation def ci matériel xam ni ñu koy defee ut ay slogan yu baax bind ko ci ay pancarte ak ay banderole yu baax ut ay moment yu stratégique place yu baax ut ay micro ak ay haut-parleur yu leer waaye ut ay waxkat yu mën a wax yu xam li ñuy wax yu maîtriser sujet yi ñu jiital leen ci loolu di ko li ñuy bind di ko wax di ko wax ci làkk réew ya ñu nekk di ko wax ci anglais surtout fu ñu mën a nekk làkk réew bu ñu koy wax it nañu fexe ba traduire ko ci anglais ku fa dégg anglais dañ ko jox mu wax ko ci anglais c'est important li ñuy def ñu wax ko ci anglais yu leer anglais moom àdduna bi yëpp koy làkk bu dee dëkk tubaab la ñu làkk fa français waaye bu fekkee dëkk yeneen dëkk yi la bu ñu ko làkkee ca dëkk ca làkk dëkk ba nañu ko wax ci fran nañu ko wax ci anglais en plus wax ko ci anglais bu ñu noppee wax ko ci wolof ndax sénégalais yi dégg xam ne ah dëkkub sàngam kat sénégalais yi taxaw nañ fa na ngay ñaxtu ci li xew ci réew mi te mooy jaadoole geeg sàcc alalu réew mi mafia bi nekk ci réew mi la république de rock and roll mu leer ci bopp nit nit ñi xam li xew ndax xeex xam-xam la d'abord nit ñi xam bu ñu xamul xeex bi du yomb kon lii mooy li nga xam ne moom laa ne woon naa ko indi mu nekk loo xam ne désormais dañ koy tuddee la jurisprudence Sadio Nanki Sadio Nanki ni mu def ci Portugal rafetlu naa ko lool macha allah xam-xam la technique la te jàll na macha allah banderolam boobu mu yëgati ci biir stade bi loolu moom c'est extraordinaire noonu la ñuy xeexee loolu mooy am xel moom Sadio Nanki xawma ku jàngul dara ci tubaab yi waaye moom gis nañ tubaab yi di xeexee mu nekk royukaay nekk loo xam ne ñëpp nañ ci bàyyi xel ñu di ko taggee saajo Nanki méthode Sadio Nanki lañ koy tuddee dinaa ki def ay tag partagé ko ba ñëpp xam ni ñu war a xeexee lu ama ama am solo la. Euh, waaw Baye Fall nee na depuis six ans je vous écoute. waaw wax nga dëgg de wax nga dëgg ñu ngi lay ziar bu baax ci topp gi kon yow moom daanaka yow yow moom xam nga ma koo xam ne boobu ba léegi topp yow moom xawma ku mu umpul waaye xam nga ma yow mën nga maa àtti waaw ndax six ans nag du lu du lu ndaw ñu ngi lay ziar yow da jox sa wàcc waaye ndax topp nit six ans xëy na danga nga caa gis njëriñ waaye <laughs> bu njëriñ amul woon doo ko topp kon yow moom mën nga maa seede dina jaajëf rek sa taxawaay ci topp gi tamit ndax mënoon na la a bañ a fekk ne ah kii de li muy wax amul njëriñ wala boog daf may taateel xaaral ma zappe kon na ko ñëpp gisee noonu di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay kenn ku ci nekk di wax na ñëpp waajal bis naka tey Paris na ñëpp jóg suba gannaaw suba Paris waaye le 23 ñu war a dem si pays à La Haye en Hollande na ñëpp waaj Allemagne Belgique Angleterre waa waa Hollande ak ñi nekk Paris. gare du nord deux heures et demie TGV yéen ñëpp vite fait aller retour du dara voilà tey la xëy jël premier TGV yi huit heures neuf heures fekk la fa seize heures dix sept heures affaire bi jeex nga jëlaat sa TGV ñibbi Paris Allemagne tout ça Hollande soriwul c'est à côté tubaab yi am nañu ay xarañ xarañteef tabax nañu ay saxaar ak i avion yu gaaw yoo xam ne foo bëgg dem mën nga ne ñokket dem léegi sa cherul bu cher itam jar na ko na ci ñëpp def seeni koppar ñu dem dajaloo si pays waaw suba la alxamis incha allahu euh, Franco euh, Juan Branco na def benn point de presse ci dossier bi mu war a déposé CPI ci wàllu crime yi Macky def muy crime contre l'humanité xam naa dina jeex adresse ba yooyu ñëpp teewlu ko ñëpp seetlu ko ku mën a dem nga dem teewlu ku ko ko mënul nga partagé ko ba mu yaatu ba àdduna bi yëpp dégg ko loolu lépp ci xeex bi la bokk muy lu ama am solo di leen ziar yéen ñëpp di leen jaajëfal di leen wax nañu continuer taxaw temm taxaw temm taxaw temm xeex rek xeex képp de amuñu leneen xeex rek xeex bi nag am na foo xam ne day laaj taal am na foo xam ne day laaj dóor am na foo xam ne day laaj fetal am na foo xam ne day laal lakk am na foo xam ne day laaj barrage waaye am na foo xam ne du laal loolu lépp du ko laaj am na foo xam ne day laaj xel laaj pancarte laaj argument laaj làmmiñ wu set laaj laaj wax ba mu leer bu nekkee Europe loolu la laaj parce que Europe noonu lay doxee Europe kenn du toj kenn du dóor kenn du saaga kenn du def yooyu yëpp ndax ñoom dañoo silwiise am ay loi di ci dox yëruñu ay procureur yoo xam ne dañ leen di corrompre ñuy bind lu leen neex di tëj ak tëj ku leen neex amul Europe yoruñu justice boo xam ne te ku jiite Ismaïla Madior Fall bu xëyee tey fen suba mu fen bu ko defee day wàcc yoruñu président boo xam ne lu ko neex lay def di jàpp di tëj di tànn ay candidat loolu amul Europe bu ko defee day wàcc moo tax bu ñu nekkee ci dëkk tubaab bi nañu respecté loi yi tubaab bi di def ni ñuy ñaxtoo di ko respecté ci ñoom ni ñu ko bindee ndax ñoom kat seen dëkk yi lu mu dee dee dee dee am na liberté am na démocratie te it juge yi ñi ci ëpp ñu ngi fexe ba doxal yoon ñoom moom seen yoon melu ñu ne juge yu Macky Sall yi melu ñu ne police yu Macky Sall melu ñu ne justice yu Macky Sall melu ñu ne gouverneur ak préfet Macky Sall nga xam ne lu ki bëgg loolu lañ bëgg ak m Faye Sall dëkk bu mel noonu nag Sénégal xeexa fa am gàtt sa saagante ndey tegante bopp taal mu tàkk ndax yoon amu fa waaye dëkk yi yoon am loolu amu fa te mooy dëkk tubaab bi kon nañu am capacité di adapté suñu xeex selon dëkk yi ñu koy xeexee ak loi ya am ci dëkk ba dañu koy adapté comme Sénégal amul loi gàtt sa gàtt sa rek waaye bu ñu demee ci dëkk yi am loi kenn du fa gat sa gat sa moom da ngay da ngay xeex ci ni la ko yoon wa ca dëkk ba maye nam la ko maye noonu nga koy defee ñu bàyyi ci xel ñu bàyyi ci xel voilà lu am solo lu am solo laa leen di wax nag ñu bàyyi xel ci loolu voilà léegi ñoom dem nañu ba dañoo tiit waa APR yi ak waa Macky Sall yi léegi ñoom dañuy jël ay bracelet defar nañu ay bracelet jël nit ñi war a ñëw def leen ci ay liste pour jox leen xaalis takkal leen ay bracelet pour que ñi ñu war a fay ñu fay leen waaye tamit ñi bokk ci ñoom ñu mën leen a ràññee ndax bëgguñu léegi ku leen infiltrer ndax léegi dañuy bañ ku ñëw ci seen biir infiltre leen moo tax ñu ut ay bracelet ku fa dem da ngay takk bracelet boo xam ne léegi Macky Sall léegi day xaajale sénégal yi da koo xaaj ñaar xaaj justice bi ñaar xaaj police bi ñaar armée bi ñaar lépp la xaaj ñi ànd ak moom muutal leen ay mandarga ay signes yoo xam ne ñoom Macky Sall lañu àndal gouverneur yeeg préfet yeeg administration beek justice beeg police beeg armée beeg gendarmerie bi yëpp da koo xaaj ci digg bi jël benn wàll bi téye lu ñu bëgg mu defal leen kenn du leen tëj ci kaso yi mu jël alal ji bokk ko ñoom ñooy buuma ko bummi ku leen gis xam ne ñoo Macky Sall ànd ñi ànd ak Macky Sall ku yëngu mu tëj dugal ci kaso bi ba ci bu demee France ñi war a dajeeg moom Sénégal yëpp war a ñëw ñi ànd ak moom ak ñàkk ànd ak moom ñëpp la war dalal wala déglu ñëpp même ki àndul ak moom daf ko war a toog déglu ko ndax moo jiite Sénégal gépp su kooko amee lu muy ñaxtu mu déglu ko mu jóg taxaw ne ko ànduma ak yow ci lii gii Macky Sall toog déglu ko Macky nee na du def loolu moom ñi àndul ak moom du leen déglu du leen dalal du wax ak ñoom lenn ñi ànd ak moom képp lay dalal te da leen ràññee ci ay mandarga yoo xam ne muy ay bracelet ay càq yu muy defar jox leen ko ñu takk ko fa mu nekk ñoom ñooy toog ak moom mu jël sénégalais yi xaaj leen ñaari Sénégal Sénégal bi ànd ak moom ak Sénégal bi àndul ak moom Sénégal bi àndul ak moom kaso ballu fetal rey ak dóor Sénégal bi ànd ak moom mën naa sàcc mën naa def faux billet mën naa jaay cocaïne mën naa fen mën naa def lu ko neex mën naa sax woote na nañ jël sénégalais yëpp rey leen ba mu des 10 pour cent ñu bàyyi ko fi kooku kenn du ko woo procureur du ko woo nañu rey Ousmane Sonko dara du ko ci fekk waaye yow boo nee lii Macky Sall wala lee balaa ngaa pare ñu jëli la ci sa kër loqati la dugal la 100 Sall Sénégal gii la fi indi lii nag jar xeex jar na jël fetal jar na jël jaasi rayante ak moom ndax Sénégal gi ñu bëgg mooy Sénégal gu ñëpp ànd bokk nday benn bokk bàyyi boo xasee ba nekk président yaay président wu Sénégal yëpp dangaa ngaa war a déglu ki ànd ak yow waaye da ngaa war a déglu aussi ki ànd ak yow ndax doo yàlla doo yonent bi ñëpp mënuñoo ànd ak yow kii ñaxtu naan d'accorduma ak yow danga ko war déglu ba xam li tax d'accordul ak yow lan la nga déglu ko mu wax la ay layan teg ay layan soo amee tont nga tontu ko soo amul ay tontu nga ànd ak moom ci loolu nga fexe ba yow li muy ñaxtu jëmale ko ci yow nga fexe ba loolu nga mën koo saafara parce que loolu lañ la fi tegee tegewuñ la fi ngay noos sàcc suñuy alal dina pàjje say jeeg dañ la fay teg ngir ngay saafara jafe-jafe askan wi bu la askan wi falee dangaa war a déglu askan wi ci seen i ñaxtu ñu wax la li nga xam ne ñoom neexul leen ci ni ngay doxale nga jéem koo saafara boo ko mënul leen mënuma ko ñu tànn keneen waaye man képp maa fi toog ki ma neex moom laay àndal ki ma neexul ma tëj ci kaso bi ku yëngu ma dóor ma tëj loolu du am ci réew mi bu soobee yàlla du fi am dañuy xeex ak yow reyante ak yow Macky Sall du fi am voilà du fi am de duñ la may taraf dix duñ la ko may waaw waaye dégg nga maam yor ak gétt ñëpp bokk ci gétt gi nga ne gétt gi kat ñii ñooy naan ci meew mi ñii duñ naan ci meew mi déedéet gétt gi moom ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi ñi ànd ak man daañu naan ci meewum gétt gi ñi àndul ak man duñ naan ci meew mi du si am dañu rey jur gépp lépp la taal ñëpp yam ci meew mi kenn du ci naan seen tappale yi day jeex ci nii wala ci ne Sénégal moom dañuy reyante fii nag moom bu fi ñëwee Europe fu ngeen mën a dem Amérique da ngeen ñu dégg bu saw yàlla diaspora bi moom fu ngeen fa wàcc da ngeen ñu dégg da ngeen ñu dégg ci ay pancarte di ngeen ñu dégg ci ay slogan di ngeen ñu dégg ci ay wax di ngeen ñu dégg ci loo xam ne seeni jëf la duñ leen sosal de bu leen kenn sosal buñ leen sosal de nañ leen waxal seeni jëf ñoom li ñuy def lañuy wax duñ leen sosal duñ leen fenal duñ leen saaga duñ leen dóor waaye seeni jëf ñoom Macky Sall seeni jëf ju bon lañuy ñuy yëkkati na ko fàng yëkkati ko wax ko ba àdduna bi yëpp xam ko loolu mooy xeex bi ñuy xeex ak ñoom ci bitim réew est-ce que leer na lii laa bëggoon a wax di wax ngeen partagé ko dagg-daggee ko def ko ci whatsapp bi yëpp ba ñëpp xam ko diaspora bi yëpp ngeen yëkkatiku ci xeex bi def ko ci xam-xam ak technique ak matériel yu jub yu leer yu xam ne bu ko tubaab yu xoolee xam ne ñii kat ñu xam ne ñu bëgg ñii kat ñu yeewu lañu ñii kat ñu civilisé lañu ñii kat ay nit ñu am ay valeur lañu ay nit ñu bëgg lu baax lañu ay nit ñu xeex dëgg lañu ay nit ñoo xam ne kat seen xeex bi xeex bu noble la kon ñun tubaab yi kat nañ leen ci jàppale waaye tubaab moo ko uud yem nu mu la gisee noonu la lay ëwee bu gisee ne li ngay xeex du am xel am xel nekku ci përëx përëx la jaay doole ki saaga ga affaire violence que yu kenn xamul tubaab bi xamuñu loolu ñoom dañ lay seetaan dañ naan ñii ay sauvage lañu kenn du leen fop li ñu def du xel newu ci tubaab li muy dugg da koy xool ndax am xel ak ci bu ci xel nekkee mu tàbbi ci bu ci ak ndof nekkee mu taxawee nële kon yéen yéen a am intérêt fexe ba xeex bi ngeen di xeex ñu koy xeex Macky Sall ñu yëkkati ko ba mu am intelligence ba nga xam ne tubaab bu ko xool xam ne ñii kat li ñuy xeex lu intelligent la lu jar a xeex la lu noble la lu tegu cim xel la lu xel mën a bañ a nangu la parce que xel mi da koy nangu par force parce que bu ñu ko expliquer ba mu leer jaarale ko fi ñu ko war a jaar ci ay slogan ci ay communication ci ay ñaxtu yu silwisé loolu mën nañoo convaincre ñu baree bare bare ci opinion publique internationale bi ba ñu ànd ñun ci xeex bi ñu ànd boole suñu doole pour jëlee fi Macky Sall lii laa ne woon mënuma ko ñàkk yëkkati wax ko ñëpp xam ko ngeen tasaare ko ñu nekk ci diaspora bi ñëpp bàyyi ci xel uti ay matériel uti ay pancarte uti ay slogan uti ay flyer uti ay micro uti ay lépp def ko ci defin woo xam ne dana méngoog ni ko tubaab yi defee ci seen réew yi parce que réew mu nekk nag ak na nga fay xeexee mënuñu am benn façon nga xeex bu ñuy xeexu Sénégal muy xeexu sauvage boo xam ne foofu la valable ndax foofu ñëpp fa nekk ñëpp ci kaw ñëpp ay sauvage lañu xeex ak bi ñuy xeex ak ñoom affaire sauvage donc la mën a nekk mooy gat sa gat sa waaye bu ñu génnee ci dëkk tubaab yi nga xam ne ñoom dañoo organisé wu am ay loi am ay juges yu indépendant ay ministres yu indépendant am ay peuple yu xarañ yu yeewu yoo xam ne kenn du ñu ay làppato dañuy fexe ba adopté wu xeex ak xeex ci seen dëkk yooyee xeex woo xam ne dana méngoog ñoom li ñu jàppee xeex bu ñu bëggee ñoom ñu ànd ci xeex bi lii mooy li nga xam ne mënu ma ko woon a ñàkk ba ñu jëkkati naa ko wax ci live gàtt ñu partagé ko yaatal ko ba ñëpp jot ci ndax xeex bi mën a am njëriñ di leen jox ndaje kon fii ci kanam ki nga xam ne mooy sàcc bi assassin bi le génocidaire Macky Sall bu àggee Paris waa France Paris ñëpp jóg ñëpp tey après midi bi ne ñëpp jóg bu ko kenn wàcc na rue Vineuse 32 rue Vineuse Paris 16e métro Trocadéro wala biir Akiem ligne métro bi ligne numéro 6 la arrêt bi Trocadéro la wala biir Akiem ngeen wàcc fa 30 32 rue Vineuse Paris 16e répété na ko répété waat ko na fa ñëpp daje tey ak suba incha allah rabbi di leen nuyu di leen ziar leen jox ndaje ci kanam di leen wax salaamaaleykum vive le Sénégal vive la République sénégalaise vive les Sénégalais vive les patriotes jaa leen